waaye ku ne xam na ne moom royukaay yaa ngi fi ndax sëriñ Touba dundam gu barkeel gi liggéeyam bu rëy bi mission bu mag bi nga xam ne moom la indi ba tey jii mu tasaaroo ci àddina ci nja ci ci pasteef ak taxawaayu jihaadkat bu mag bi nga xam ne moom lañuy fàttali ko tey di Cheikh Moutalla liggéey boobu kenn kenn taxu ko woon a jóg ku dul doomu nit nit la doon xet moo tax mu sacrifier léppam ngir doomu aadama bi mën a mucc ngir doomu adama mën a soowe ngir doomu aadama mën a am xéewal ki ko suñ borom fàggul fii ci àddina ak fële ci àllaaxira waaye nag loola balañ ko mën a am dafa am yoon wu ñuy jaar yoon woowu nag moo taxoon suñu borom yónni yonent yi suñ Musaa wax na ko ci ngoon ñu ñëw ngir xàll wane yoon woo xam ne ku ci jaar danga mën a àgg ci saadatu sarmadiya alabadiya mooy texe gi nga xam ne day sax dàkk te boo ko xasee am dootu amati texe di mukk waaye dafa bokk na ci moyens ak jumtukaay yi nga xam ne ñoom wootekat yooyu daan nañ ko jëfandikoo moo di tàggat nit ñi ci wàllu yar defar seen jikko te bu ñu waxee yar ak nu ñu yare suñuy gone yooyu yëpp danañ ci ñëw ñoo ngi wax a tarbiya nadariyan wa tatbiqiyan yar théoriquement ak yar pratiquement te yooyu yëpp benn mënu cee dem bàyyi morom ci lenn lu ci nekk it lislaam jàngale na ko wutal na ko itam ay jaaruwaay ak ay li ñuy tudd ay muqawimaat yoo xam ne ñoo koy jubbanti di ko orienté ak ay manaahij ay méthode danañ ci ñëw bu ko defee ñu delloosiwaat siwaat suñu xel xam ne àddina bi ñu nekk di ci dund dafay jeex te jeex na ba noppi ndax mboolem tegtal yi nga xam ne yonent bi joxe woon na ko ne buñ ci àggee ñu xam ne saa ngi jege si yu ci bare bari gis nañ ko suñu borom nag nee na fa hal yanduruuna illa saa an tatiyahum baxta faqad jaa ashraatuha fa anna lahum id jaathum ngi xaar yowmal rek di laaj kañ la ak di ko séentoo ko ñàkk séentu waaye buy ñëw da leen di bett day jekk-jekk rek ne këtt ni jon te lu ne këtt ni jon boo ko waajul dana la man di ko wax di wax mu ne nag bu fekkee saa taxawagul itam faqat jaa ashraatuha mandargay saa yiy tekki la ne yowmal xiyaam mi ngi jege si ñëw na te faqat jaa la wax xat jaa kon lu ñëw ba noppi ba tax nañu ñu war ko waajal bu baax ci defar suñu bopp defar suñu njaboot waaye defar itam lépp loo xam ne lu aju ci ñun kon yar importance am lañuy njëkk a junju moom la njëkk a waxtaane soog a ñëw ci méthode bi lislaam tëral pour yar mën a am ak jumtukaay yi nga xam ne moom la yarkat bi di jëfandikoo ngir mën a mottali yaram ci anam gëm ko bëggee soog a wax nag ahdaaf yi maanaam but yi wala objectif yi nga xam ne jubluwaay yi nga xam ne moom moo war a tax kiy yar jóg di yar yooyu incha allah bu fekkee waxtu yu may na ko danañ ci ñëw waaye ci importance yu yar junjoon nañ ci aslëf ci waxtaanu soxna jaar màggalu soxna jaar gi jàll danañ ci dellusiwaat euh, sëñ Fallou junj na ko léegi sëriñ bi itam bind na ci lu bari te dañuy wax ne sëriñ Tuubaa lépp lu mu jël xalimaam bind ci rek loolu ñor na ko taalibe yi bi ñu nekkee ak moom ba mu yàgg ñu gis ne sëriñ bi kët lépp lu mat a wax lu nekk wax na ci te ñoom itam soxla nañu loo xam ne mënuñu ko ñàkk te bu ñu sañoon mu jaar ci moom mu di wàllu yar ci wàllu théorie ci wàllu théorie maanaam bind ak wax ak ak ak leeral ak yu mel noonu ñu ñëw ci sëriñ bi ñaan ko ne ko dañu bëggoon nga euh, bindal ñu téere boo xam ne bu ñu ko ji bu ñu ko jàngee te jëfe ko danañu mën a am li ñu bëgg ci wàllu yar taxamu mu taalifal leen téere boobu nga xam ne bu siiw la bu ñuy jàngale di ko jàngale mu di nahju qadaa il ci am solo gi yar am solo boo gisee ci njalbeen gi bi mu ubbee ba àggal dafa am lu mu xamle comme ni ko sëñ Maam di faral di waxee toujours sëriñ bi yu ci bari ci yi muy bëgg ci projet yeeg ak digle yeeg yooyu su koy def da koy def ci forme ci forme lu ñaan loolu am solo la sëñ Maodo na ciy faral di insister bu baax léeg-léeg ba démb rek wax na ci. lii suq dawaaman futuxaatin akunu biha bushra liman bi hudal islaami qad daana ku ko jàng te tey xam naa sax dégg waxe sëñ bi yombul jafe la. rawatina ci sama classe bi waaye ci arab bi rek soo ko digloo ak xam itam fi muy waxee léeg-léeg di nga daal xam ne kon moom futuxaat yi maanaam victoire yi Serigne Murtada am ci àll bi Europe Amérique Asie ak fu ak Afrique Serigne bi moo ko ñaanoon boroomam te wax na ne ñaan gi saxal day saxal lu am ba noppi la mu di ko def ndax ñaan jaamu yàlla la te moom doyal ci jaamu yàlla moo tax toujours muy jëfandikoo formule ñaan bi ngir wane jàngale li bëgg nit ñi xam ko ba tax mu yàlla ñaan naa la nga may ma ay victoire yoo xam ne ay ndam ay ubbee yoo xam ne ci laay jaare ba doon mbegum képp koo xam ne lislaam mooy sa diine defe naa kuy béggee lislaam ku nekk képp koo xam ne yaa ngi béggee lislaam ku nekk diine lislaam di sa mbég da nga bég ci liggéeyu Cheikh Moustapha bi mu def ci àll bi xaw ma nag keneen koo xam ne leneen da caa dugg wala leneen da leneen rax ca kon ma ne ci naxju boobu bi sëñ bi ubbi rek ci am solo gi yar am solo li mu njëkk a xamle ci luy niru delloo nit ñi ci seen boroom ci taw tawxiid waaye da ci biir jàngale itam euh, euh, am solo gi yar tax na mu wax ne suñ boroom mii ma leen di wax mooy ki nga xam ne moo def yar bu rafet te teggin yu rafet moo ko def muy nëbbu ak réer waaye di nëbbu askan wu ñaaw boo amee yar am teggiin sëriñ bi nee na boo jàngul itam kenn du xam sa ñàkk jàng soo bokkul fa nga war xëy na kenn ku ne fa nga war a bokk nga bokk waaye nag ni ñu koy waxee ci aada bu fekkente ne askan wa dafa rafetul itam ci sa yar ak sa teggiin mën nga caa jaar ba nëbbu mënuk askan woowu kenn bañ laa xamal dara wa huwa alladi jaala xusna al adabi yuxfi jahalatan wa qubha nasabi daal di wane it ne ñooñ xam-xam boroom xam-xam yi ak boroom yar yi ndax dañuy ñaar ñoo xam ne mënuñoo tàggali ko ñoom ñaar yi xam-xam ak yar xëy dana ñëw ci moyens yi yar xam-xam ci la bokk dama koy bañ a anticiper waaye nee na ñooñ boroom xam-xam yi ak ñooñ teggiin ñi borom yar yi ñooy ñi suñ borom jagleel texe gu mag ëllëg ci làq ak njub ak làq ak pay gu jeex tuyaa bi juróy wa xussa ahlul ilmi wal aadaabi bil fawzi bis sawaabi wa sawaabi kon nag su ngeen gisee nag may bind li ma ko waxee léegi ay taalibe yu am pastéef yuy dellu ci yàlla yuy dellu ci seen borom ñoo ma ñaan ne ma bindal ñu téere boo xam ne daf ñuy delloo daf ñuy jàngal teg yi nag ak wàllu yar ngir ñu mën a yaroo hada wa inni al yawma du ijaba baad al muridina zawil inaba